kenn xamul yow bi nga bëggee bës yow bi nga fay man dëgg laay wax. kan moo fay yow. da nga ñëw fay kenn faale wu la. déglu ma man dëgg laay wax. parce que Serigne Touba da nga ñëw fay. kenn faale wu la. kenn lijjantiwu la. nga jàpp Modou Lo di ko taakale. dem ba nit ñi xam la. nit ñi commencé naa dégg nga jël Modou Lo taf sa nga bëgg wàllu wut wàllu. nga bàyyi nag nii nii ba jekku xam ni fi mu ne nii yaa ngi nga bëgg jëlaat Modou Lo di ko dóor see <laughs> lay wax rek yow da ngaa jàpp ni damay dóor Lo ci lan mais yow Lo la gën a ci Siteu mais yow yaa wax sa xalaat yow Lo da ngeen a bokkoon équipe waaw yaa dégg waaw bàyyante non wuñu dem ba am écurie waaw nga dem fële ma dem sama écurie waaw léegi yow mais yow da nga bëgg bëri Lo déedéet ci kaw suuf dara du ko jaral boo ma mayoon zéro sera bi sax taxul ma bëri moom waaw léegi kon lu nga bëgg Siteu ko yow parce que sama arrangement ma mën a bëri mais Siteu yow taxawoo fi nga ne dootoo bëri Siteu ci àdduna jooy jooy jooy mais yow <laughs> la yow man nekkul roi des arènes de ma bu baax xel laay wax ci xel laay wax yow yaa fi jooy ne Siteu li mu la defal non non kese man jooy mais dama ni la Siteu bu amee dem ba mun a bëreeg Modou Lo war na mun a bëreeg Zarko yow yaa ngi koy wax ci cadre li ma lay wax ci ngor ak yooyu non pas ngor mais bi amul ngor Siteu yooyu eh, dama la bouger. mais moom mais Siteu eh, musul wax du bëri. dama ni la dama ni la waa dama dama. waaw Siteu musul wax du bëri Modou Lo. Euh, Modou Lo ñaata yoon la wax du bëri mbindeef Balla Gaye ñaata yoon la ko wax. Modou Lo man. Euh, Modou Lo Balla Gaye ñaata yoon la wax du bëri Eumeu Sène. Balla Gaye musul wax du bëri Eumeu Sène. Eumeu Sène moo doon wax dootuma bëri mu Balla Gaye. mais bëriwaatul. Eumeu Sène. waaw mais loolu loolu Eumeu Sène la. mais Zarko damaa dégg léegi. en matière de sport y a pas de loyauté ma xamal la loolu en matière de sport am ay en matière de sport y a pas de loyauté dañ lay da ngay bëre ñu fay la mu jaral la nga bëri punto mais la ma li ma jaaxal léegi sax yow dama bëgg nga dugg si Modou Lo ah. Siteu dafa taxaw jàkkaarloo Modou Lo mais lépp luy am ci diggante moom Modou Lo def waaw mais mais moom mooy xale moom moo bëgg moom mooy bëri combat bu mës a ci àddina kon léegi bu taxawee di xaar kon luñ ko fa def nangu sa waxante mais communication surtout noo ko jàngatee. mais loolu xam nga man nit ki moom wax dëgg yàlla waxam moom waxam moom la concerne quoi parce que moom ak adversaire am la. Mm-hmm. man du man ak moom moom ak Modou loolu moom mooy xool lu ko neex mu wax. bu ko neex yow booy bu ko neexee sax man la su maay mu saaga def lu ko neex. Hmm? moom la concerné. mais si te instant yii nag teel a dugg ci combat bi. mais nag. teelu ci dugg teelu ci dugg teelu ci def dara parce que eh, maanaam moom xam na lu muy tojee bopp dina xam. sama non mais dama ne Zarko yow bu fekkoon ne yaay bëri Modou Lo heure bii. non loolu du mës a am ci àddina. non du ko def non di nga teel a yee combat bi. dama ne la loolu du mës a am ci àddina te stratégie lay def. dama ne la loolu si laa a a dugg ci làmb yow si léegi Siteu bu nooy lee nii nii nii ba ba muy waaj a yegg si nag day fekk Modou Lo fi mu nekk nii Siteu waru koo dugal ci làmb ci ama manière man. yow li ngeen jël sa tafaatin boobu. sama nga def boobu. day daan loo bëgg a wax day daan Balla Gaye. yow la la la moo tax nga bëgg wax la buuti ñoom la Balla gis nga Balla Gaye ak kii. Tafatin mel. loolu loo ci wax yow. tey teg lay yére rek sa waay teg le li ngay bañ teg le daa teg lay teg le ba <laughs> mais tamit Eric Favre saa yi bu ma doon man maay signante moom man ak Balla mu toll noonu. Balla tiimee nu mu tiimee noonu Balla. que bu doon man gis nga yuuxu boobu may yuuxu bu ma ko dugalee. dimbali ma fii nga signature bi jàpp fii nga signé guy gi mu tëbali la man. bal maa ngi <laughs> ñu signé buy bi. këjëf yaa ngi tooñ de këjëf yaa ngi tooñ de yaa ngi tooñ. ba ma solee beere mi seen da nga ko fàtte. yow guy yow guy gi daw làqu di si manga. mais manga manga dimbali ma kii ay bandi la fi indi. ñu mbéj ko. mu naan ay Zarko da wax sa booy. ma ne booy eh ba di jàmbur bi ñu génnee guy gi kenn di yàq na yoon. mboole astafurlah yow benn nit guy gi quatre man la àndaloon. yéen ñeenti ngeen yéen dama leen yërëm yéen su ma leen toppoon dañ leen fay rey. <laughs> yéen ñeenti ñun ñun ñu indi ñeenti camion. ñun jën daw daw fu ñuy daw jëm. ah yow di yàlla la ci gars yi da ngeen xamee daw. yow la ci quoi mais mais mais mais. da ngeen xamee daw. wuy ma Aline Ndiaye dafa doon benn communication. loolu nan la ci la. mooy titre roi dañuy. est-ce que gis nga ne soo jógee si Bébé Diène pourquoi Sa Thiès. Ah, mais Ba Ndiaye tëgg ko Ba Ndiaye tëgg ko comme baa di coow waaw xam nga man boo déggee sama sortie yëpp ah. li may wax benn kàddu kese la ah. nee naa man soo gisee ma dellu si waat Sénégal mm-hmm. pour bëri. Mhm. su ma leeree ni du ma bëri ak mhm. damay delluwaat Europe dem toog fa. Mhm. bay. man Sa Thiès. moo gën a bokk ci ñu ma indi ci làmb ji Sénégal. newoon naa ko nag boo bëreeg euh, Eumeu seen ba pare ah. xaw ma nag la fay xew. mais xam naa ne bu daanoon ama seen dootuma tal. mais fi mu nekk nii dafa ne ci. ñor na xaay su xaayee ñor na dama la moom dafa ne ci saako yi. moom ah. bu ma neexalul fi mu nii man du ma ko jël. <laughs> <laughs> <laughs> combat la illah Baye amatina combat coow rek. billahi Baye Baye moom bii moom ah. combat bii rek la Sénégal di xaar àddina. Ah. kon daal fi mu nekk nii <laughs> su ko neex Baye su ko neexee tey tey tey mu. tey tey tey mu taxawal Zarko Sathiès. Zarko Sathiès kon incha allah Baye xam naa ne Baye lu si am dina la woo. waaw parce que xam nga ne man maay Baye. bàyyi mooy man mooy yow waaw combat yi may may wax yëpp. ah bi ma boobu moom ma ko gënal. bi ma si gën a intéressé. Zarko Sa Thiès moom ma gënal ci àddina ah parce que tamit doy na quoi xale yi doy na. waaw mais dafa doy parce que parce moo tax euh, bi ñuy ñëw li tax ñu mm-hmm. doon jël xale yi. Mm-hmm. parce que xale yi doon jël mm-hmm. ñoo ëpp ñoo fi ëpp coow. comprendre nga. te gëj nañ ci làmb ji. def nañ six ans ñëw ñu bëri. donc pour ñu am benn coow bi ñu bëgg. foog ñu jël ci xale yi am coow. comprendre nga def ay risque pour gagner dara donc yàlla defal na yàlla dimbali nañu def nañu ay risques. ci mhm. risques yooyu aussi tamit xam nga. Mhm. jig nañu. kon donc def du ñu def lu dul sant yàlla. Mhm. xam nga di ko ñaan. xam nga mu dolli mais combat bi Zarko Sa moo ñu gën moo waaw moo lay gën a lépp. acca euh, kon Baye nga la euh, euh, cokkaas na Sa <laughs> Sa sama xarit mais sénégalais yi nekk si benn coow boo xamante ne du ma la laaj ci kii ku nekk xam na ni yow porteur de voix nga soo waxee ñëpp dañ lay dégg. Mm-hmm. coow sa jabar gis nga li ñu koy jàppee da koy jàpp da koo jàpp mat da nga koo jàpp. Mm-hmm. ñu nekk si coowu ndaxte ak Mario xam nga Mario. kuy ndaxte. ah, ah xamoo ñooñu. Mario. Mario moom miin naa ko quoi. Mario xaw nañu xam euh, miinante. tuuti si ah, ah. Mario waaw. Mm-hmm. ndaxte nest pas mooy jabaram noonu. mais fasé nako eh, dafa génn ne fasé waaw dafa génn ne nim jëli jabaram waaw neena da ko doon dóor ndaxte neena da ko doon mu koy dóor wax ji nag bëri woon si tey polémique eh, est ce que loolu loolu mario du mario est ce que nit boobu la waaw ah mario waaw waaw loolu la je pense pas mario muy def loolu nee da ko daan masse ay trap affaire courant waaw affaire yi coow li bëri trop fu ci ah, kenn yàlla rek mooy li ñuy wax rek taalaa wallaahu taala ahlamu yàlla rek a xam. Mm-hmm. doomu aadama tamit xam mooy loolu quoi. Mm-hmm. mais man moom xaw xalaatuma ni Mario dina def dina dina dina. xalaatoo dina def métti jigéen uh-huh. parce que fi nekk nii Sénégal yëpp nag Mario euh, ndaxte faral. ndaxte ah, mais jarul jarul jarul faral jarul ñoom ñëpp ay sénégalais lañu. Mm-hmm. Euh, ñoom ñëpp Sénégal nañu waxtaan rek ñu delloowaat ko jabaram. mu dem mu dem toog. Ah, ah. loolu kese la parce que suñu gis nga suñu waajur bu ñu waxoon lu ñu daj seen suñu euh, suñu ay kër papa. non kon saa ñun dinañ jëpp suñu ay papa de. Eh, te dëkk bi góor ak jigéen ñoo fi nekk. dañu ah. fexe bëggante rek rafetal ko. Mm-hmm. te yooyu am na loo xamante ni nit mun na ko def mun na ko def kii quoi dooley biir. Mm-hmm. Mm-hmm. jarul jarul génnee quoi. nit ki moom sa biir sëy ne moo tax ñu ne néegu sëy secret la. mais eh, am na loo xamante ni jarul génnee. jarul jarul nekk di wax quoi. aca eh, mën nga mën nga dugg nii ñu eh, ñu xooli këcëb këcëb ah, eh. mën nga dugg nii ñu xool këcëb néegu sëy dafa xat quoi mhm, mhm. jarul jarul jarul ngay ngay génnee sa sa mhm. sa sa sëy jarul nga koy génnee ci mbedd bi quoi di di weer sa bopp moom weerul kenn boppam lay weer quoi njabootam mais mais si si te am na combat de si te ah yaa ko daanoon de dafa leer aha combat bu rëy fay na la fa dem. ñëpp di nga ko lekk. ba pare mën a lekk sa gémmiñ nga téye sama biir kër laa ko xamee. nga ni bu ma ko waxee lu ma xam bénéfice yëpp di nga ko lekk. doo wax yow ma dama leen di jëndi. ki tamit ma li tomaano ki yow. mais sax rajan la. dama ko morom. ak ñaari toog ah nga jëm. nga jëm de fii. léegi affaire yu bëri ay não, nii place não, wax nag não, ci place não, dinañ bëre. yaa ko daanoon de. waaw waaw. maanaam ay plan léegi pour mbëri yëpp yeewu. Hmm. mbëri nañu yeewu comme li may wax rek teerawut ay terrain teerawut business làmb kese du métier te làmb mën nga cee gaa gaañu mën nga cee gaare. Mhm. am na mbëri yu bari